Ah, asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla ay kese barke bi yombal xiyaamal akbar man nag tey damay wax ci histoire bii nga xam ni moo xew fële ci njëyeen ko tey Pire ñu koy wax bay Baye mbay nga xam ni moom moo ci faatu ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale waa Pire di ko jaale waa njëyeen waaw. man nag àdduna bi damaa jaaxle man àdduna boo xam si bu la neexee fajal sa bopp barke bi yombal xiyaamal akbar fekk nit ci jàkka. muy liggéey lu toll ni jàkka nga fekk ko fa mu fekk engagé ko ak maçon yam fa fekk nga duur leen mel ne dëkk bi damaa jàpp ne barki yow mal xaama nit ñi amatuñ loo xam si ñi ngi xalaat seen diggante seen borom nit dinañ dajeeg suñ borom. xool nit nga fekk fa mu nekk yow dem nga yow kay bu la amee lu yoon am na demal ci yoon mais nga fekk nit foofu bëri bu liggéeyu kaayam dóor ko duur ko dóor ko ba mel ni ku yor ab kaal toj ko ba mu ne tasar barke yombal xeama lakk bar xam nan la ñuy def na yoon def liggéeyam jàpp leen kenn par kenn kenn par kenn nanu bàyyi yoon bu ci kenn négocier bu ci kenn négocier naan gauche ak droite fii ñii dañ leen a war a jàpp dañ leen a war a jàpp yoon da leen a war a jàpp tëj leen ba bàyyi caabi ja amul ay ay ay ay de naissance comme ça ñu naan ñii dañ leen di tëj ba nga xam ni at sàngam weer sa non non nan leen tëj boo boole leen ak travail yoo xam si barke yombal xeama lakk bar yu métti doomu aadama yàlla ni mu ko fonke doomu yàlla ni mu ko suturaale nga fekk koo xam si père de famille yow yow ci boppam yéen ñi rey kooku rey ngeen père de famille rey ngeen koo xam si barke bi yomal xeama lakk bar ñi mu doon dundal bàyyi bas mbay xamul nu mu toll rey ngeen xam ne si ci ci diine ngeen ko reyee ndax koo xam si ndeysaan da doon da doon tabax jàkk kooku daa jihaat ci ci yoonu yàlla la faatoo fa yàlla wu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla woyofal suuf ci kawam di ñaanal ay mbokkam yàlla may leen xolu di ñaanal doom ji doom yi mu fi bàyyi yàlla na yàlla teg loxoom barke yombal xaamal ak waaye yoon daal dafa sa liggéey bu baax a baax jàppal ñëpp tëj leen ba damm caa